Badara bisimilah. waaw Dere waxtaan bi am na solo trop. Mhm. honorable dafa am lu am solo lu mu wax léegi ku nekk nag àdduna moom sa référent il faut nga am fooy am muy sa référent. Mhm. mu di Baqara ba Naas mu wax ci lu am solo. loo xam daf ma marqué. surtout Shams suñu boroom daf ci waat lu bari mu dem ba ci biir mu ni wa nafsi wa ma sawaaha am bi moom moo ko façonné harmonieusement après mu ni fa al amaraha fujuraha wa taqwaha donc da ngay xeex ak al fujur xeex bu metti pour jot sa taqwa nit ku nekk lu bon mi ngi nelaw ci moom yàlla nee na xeex bu metti la booy def presque chaque seconde ak yow nga xeex ak al fujur pour jot sa taqwa parce que nit mën na jël al fujur mooy kan maanaam alfujur ak taqwa alfujur mooy li impiété bi nekk dafa am impiété am piété ci biir maanaam dafa am mbaax mi dafa am dafa am bon bi hmm. léegi lii moo féete ci kaw alfujur boobu ngay xeexal pour jot sa taqwa hmm. xeex la bu nit di mënee ci moom hmm. yàlla nee na ku ko réussir presque réussir nga sa àdduna xeex boobu ngay def ba loolu di génn ci yow yar moo koy def ndax dañu ni gis nga ku amul teggin doo tekki dara lañ mag ñi jàngaloon ñun ku amul yar doo yor dara te àdduna nag tekki dara ak yor dara am na ci solo xale yi yépp liñ bëgg tekki dara la ak yor dara te ku amul teggin rek doo tekki dara ci àdduna waaye ku amul yar doo yor dara nan la amee yar man dama gëm ni il faut ñu amaat une connexion entre ñun ak ndaw ñi ak suñuy doom ak xale yi li ñuy wax yépp bu amul connexion si les lignes bu daggee dootul am solo Malal dafa wax lu am solo dafa indi ay termes yoo xam ni ñun dañ ne il faut parler à chaque peuple sa langue nit boo dégganteetul ak moom ci làkk mënoo leen jëflante fi ñu toll ci Sénégal c'est une banalisation du crime bu mi ngi laaj statistiques yi mais li leer mooy semaine bii am nañ quatre morts par agression looloo leer ñu gis koo xam ne day sauver jigéen ñu dóor ko bal ñu gis koo xam dañ ko fekk ba biir këram dóor ko bal ñu gis ñoo xam ne dañ leen jamate ba ñu sedd guy kon lii moom ñu ngi koy gis loolu la ñuy analyser cette banalisation du crime lu ko waral cette addiction bi ñu am ci sang deret addiction bu bees bi ñu am ci sang lan la addiction bi ñu am maanaam ci ci ci mauvaise nouvelle lan la lu tax su ma ne woon 19 damay weer jéggi abonné leen fii ñépp daw ñëw abone cette addiction ci lu bon kaay hmm. leen ma weer Aboubacar Mbuub ni 20 heures fekk leen ma fii ñépp daw fëx ñëw pour fekkee lu bon addiction boobu lan la hmm. ah ñu taxaw poser question ñu ne ñun nañ tëggaat suñu bopp ñu xoolaat suñum réew balaa joo ñoo xool ñun ak Mali ñun ak keneen dañuy xool ñun ak ñun maanaam Sénégalu démb ak Sénégalu tey. Hmm. lan mooy suñu problème ñu ni ñun ak suñuy ndaw d'abord y a problème de communication. Hmm. Malal dafa wax baat yoo xam ni booy jàpp ñu bari fii xamuñu ko. Hmm. réseaux sociaux dafa am lu ma fi yàgg a wax liñ naan gafam yi muy Google Apple Facebook Amazon Microsoft. tey TikTok amuñu ci benn contrôle Bouba Ndour mën na fexe ba lenn li du daw TFM waaye réseaux sociaux bi yii ni nekk fi naka la ñuy amee contrôle naka lañuy ñuy amee souveraineté numérique ndax way wi gën a dox ci TikTok tey way wi gën a dox refrain bi danaan danaan gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu mhm. naan sa vodi takk sa sim muy daw Mhm. dana am gulu gulu mooy alcool bi boo koy jolu ni muy defee gulu gulu gulu mhm. naan sa yi mooy alcool bi takk sa sim nante bu mel ne man sim mooy simol dañ koy xam ñun mhm. mais est-ce que yéen ñii xam ngeen loolu est-ce que sa doom buy ñëw sa néeg naan danaan gulu gulu gulu gulu gulu gulu naan sa yi takk sa sim muy daw est-ce que da nga xam ni day wax ni sàngara bi laay naan mu naan gulu gulu gulu mu naan ko màndi takk simol simol mooy nit ñu bari ñu àndandoo di agressé ñuy daw rekk di zembere hmm. lii mooy les mots yi booy la vidéo bi ma mujjee seetaan bi may ñëw trois millions quatre cent mille vues la ci xale bu ndaw trois millions quatre cent mille vues ci koo xamante ni li muy fecc mooy danaan gulu gulu gulu naan vodi takk simol mu daw lii la de xamoo leen ko nag il faut Aboubacry xam ko xam man nante laa fi ma waaw fi ma ni ma sama màgg moo tax boo ma nee sim dinaa xam ne simol ngay wax dinaa xam simol mooy lan jigi xamu ko peut-être Samba xamu ko waa léegi ñun bu ñu amee déconnexion boobu li sa doom di way ci kër gi sax nga xam ni c'est la promotion de l'alcool de l'agression de la drogue te xamoo ko. noo koy yare hmm. ki nga déggantewul noo leen noo maanaam kii mi ngi làkk anglais ngay làkk chinois. kii mi ngi làkk joolaa ngay làkk séeréer déggante woo leen y a pas de connexion les lignes soo coupées hmm. il faut qu'on rétablisse d'abord les lignes yooyu ñàkkul fayda de man je prends le temps di jàngat booy xam nga vodi moo xew ren. mais daaw lu xewoon toj sa mbaari mu naan cas cas cas mbaari mooy tesson de bouteille <laughs> tesson de bouteille bi ngay toj mu ni tas nga def action loolooy fecc mi xewoon daaw toj sa mbaari mu naan cas cas cas ñu ngi arrêté benn lëmbal bu ñuy arrêté toj sa mbaari gën a garaaw lëmbal parce que c'est l'apologie de la violence <laughs> c'est c'est c'est banalisation de la violence mais mais da gis ku eh. déclenché ñaari jam di ko baal ñaari paaka mhm. di ko baale mhm. loolu jaarul TFM jaarul 2S jaarul Sen TV ci réseaux sociaux bi lay jaar te mënuñu ko contrôler nee naa la bi ma mujjee seetaan bu vodi bi trois millions quatre cent mille vues la def mais ça c'est énorme loolu il faut le président Diomaye Faye président premier ministre son ko ñeneen yëg ko le ministre de l'intérieur yëg ko ñu xam ni déjà ñun il faut ñu wàcc comprendre la communication des jeunes ñu dégganteek ñoom pour ñu mën a wax ak ñoom. Mm-hmm. waaja nee na woon Babacar sa baay laa de ni ko rabal gone gi xale bi rab la dégg rab ko bu ñu wàccul comprendre li booy yi fi ñuy waxee. barke alxuraan dañuy am déconnexion bu ñoom. moi je gère agence bu am comme buy événementiel malal xam na buuba xam na. je même des artistes. xam naa dégg naa booy fa ñuy waxe ak li ñuy dund. vodi mënta xew ren way boo dégg gulu gulu gulu ngay baal naan sa vodi nga yaakaar ni baal la daaw toj sa mbaar yi mu naan cas mais mais nga dégg Youssou Ndour way ay jam Ismaël Lô way ay jam Omar Pène way ay jam musul am. mais c'est tey sound yi nekk en vogue boo leen demee def leen Vody challenge ñi may seetaan nañ ko def en direct ils vont voir li may wax. waaw mais léegi nag bu ñu amee ni ñun yaa déconnexion. dañuy jéem a connecté waat ak xale yi ba pare pour mën leen a yar. parce que nag nit mënoo nekk ca kaw asamaan mu nekk suuf nga ne da nga koy yar de mënul nekk de il faut ñu wàcc ci seen niveau bu ñu wàccee seen niveau ba pare. ñu jéem dem ak ñoom fi mag ñi demoon ak ñun muy ñu tëggaat nit ñi tëggaat doomu aadama mhm. Aboubacry Mbuub dafa wax lu am solo dañuy tuubaa lu tax loolu xew fa mhm. Touba njàngatum mag mu baax la ñuy wéyee lim ñu wax ci nax ju ñun ñëpp xam nañ ko ñi ci tënku amuñu yenn problème yi yar gi Serigne Touba bàyyi kersa gi mhm. sutura bi ak yooyu mais attends ñi ko doxee loolu du am problème jëlal taso du Cheikh rek bis merci beaucoup mon frère xam nga tey loolu bu dee moom la ñuy doxee mais duñ am yenn problème yi ana njàngale moomu ci suñu école ana tey ñun la cellule familiale bëggante bi amoon suñu biir jàppalante bi amoon suñu biir mais defante bi ma la wax dëgg la defante bi ci ñun la njëkk a tàmbale mm. mais mais sañse xam nga man ak buuba yi dañ bëgg sañse ak gars yëpp mm. mais sañse bu ko nit daan def c'est pour plaisir am mais damay toroxali samay noonu sañse ba kon yow dootul bëgg. pour nit am gàcce la. man nag Badara su may jógee sama kër. mais sañse pour bëgg la. non pour dire vrai. bu may ñëw sama kër pour sifaay leen de. non moo la solo non non non. tey bi bu may ñëw jàkkaarloo nii. waaw <laughs> c'est pour dóor leen de. mais c'est pas pour <laughs> mais mais pour nous humilier. si. mais bàyyi ma continuer ah, bàyyi ma daaneel foofu damay ñëw pour écraser bàyyi ma daaneel foofu mais ah, kii day tooñ mais yàlla xam na boo solee lu rafet moo lay njëkk wax soo fi ñu génn tey nangam <laughs> comprendre balaa ñoo dugg direct mais il faut ñu jàngal leen ni mais plaisir u mbaax gi nekkoon ci ñun anemu hmm. ça va nous sommes devenus un peuple très violent le mal est très profond bu ñu nax suñu bopp hmm. ñun le sénégalais tey dañu am problème on ne s'aime plus yow sénégalais di dee sénégalais def live taal ko ni yàlla na dem sawara hmm. waaye loolu di semaine yi bi ngol-ngol gaañoo bërki Dembo Ndiaye. nit ñi hmm. ree nit ñi di ko like di ko aimer loolooy sénégalu tey de nañ bàyyi buñ toogee télé yi di rafetal yenn yi duñ ko mën a faj hmm. réew mi ñu nekk nit ñaa ngi ci benn genre di consommer wu à l'intérieur da ngay romb nit mu mere la loo yëgul koo xamul naka la ñuy def ba loolu dañ ñu tëggaat nit ñi ñépp ci am responsabilité ñépp man am naa responsabilité ci sama famille waaye samay rakki Grand Dakar tamit keneen am ko responsabilité ci famille ak fa mu dëkk mm-hmm. ñu waral def li nga wax sànq malal sur le plan communautaire mm-hmm. ku ne dellu ci sa base wax ak say rakk dëgg la parce que sinon kenn du ci mucc man benn xale daf ma agressé jël sama téléphone Freddy daw di mbëkk ko jàpp ko ñu yóbbu ko gendarmerie non bàyyi la mu continuer bu ma ko café xoolal booy bi bi ma ko yóbboo gendarmerie bi ma ko yóbboo gendarmerie man maa man maa bindaat pour ñu ko libérer ko xam nga lu tax magam téléphone am su may commencé émission lay woo ñenn ñi ni jàpp leen ba Badara Gadiaga mi ngi tàmbali barki alxuraan am ki ma ñaan si woon message yu ko envoyé woon depuis daaw jéeg yoo xamante ni da koy wax ni Badou mi ngi commencé rakkam def ma loolu bi ma bi ñu toogee di waxtaan maa moom ñoo doon doxaat pour li ko libérer pour wan ni ñun ñëpp benn la fi may daaneele mais attends yaa ko Sénégal nga mën a jënd jaasi dugg nii rek jënd jaasi mais loolu amul fenn mais mun nga am mën nañ wax sa paaka mburu wala paaka bu ndaw wala dara mais jaasi nga dugg fii rek jënd jaasi ju mag mais mais am na nit ñu wérul kenn du jël nit ko si ko benn dof kenn du ko jël mu jaay ko jaasi beneen chose mooy nos autorités pourquoi nos autorités ñu wax ak ñun waaye procureur bi moom buy génn rek benn benn benn policier politicien lañ war a jàpp wala benn nangam moo am loolu rek la procureur di génn Nayel booy bu ndaw bi gaañu woon France mais procureur bi day génn tout le temps wax ak ñun maa ngi gis ñuy mere les influenceurs ils sont ils ont surfé ci vide. bu procureur bi génnoon. joxe la bonne information ni fii lañ ci mën a tàmbale fii lañ mën a yamagum ci enquête bi. te mayuñu kenn mayuñu kenn mu koy weesu boo ko weesoo danañ la toppee nangam kenn du ko def wala ku ko def yaa ngi risqué. tu am na ñu ci donc gis nga vous les nouveaux procureurs la yi nekk ci ñu fa fal leen bees soyez smart. soyez réactifs. mais ngir yàlla da leen xoolaale les réseaux sociaux. oui pour ñu mën cee trouver solution. der fi may daaneele muy aussi ana kersa Sénégal mais Sénégal quand une personne meurt mais même la famille ne porte plus le deuil mais maanaam ku ne sax dañ ciy profité pour doon star ci décès bi. bi gis famille directe bi kii accordé interview une heure de temps kee defaat najaay ja def interview une heure de temps bàyyi ba def interview une heure de temps waaw mais la famille bu war a porter deuil nga xam ne boo ñëwaan dañuy kaalaw nit ñi sëgg koñ bi yëpp doo dégg bruit bu bu picc daan daw dañ koy dégg dañ naan koñ bële dafa am ku fa dee hmm. mu mu mu ànd ak sacralité mu ànd ak kersa hmm. mais c'est c'est c'est le moment où mais mais la triste célébrité quoi ku ne bëgg siiw joxe interview yi ba mu jàddee boobu dafa dugg mu jàdd fii mu nanga nga wax une heure de te da am béy keneen ko wax une heure de mais ñu jël yaay ya papa ya nijaay ya tonton ya mais attends on porte même la famille ne porte le deuil. Mm-hmm. c'est gravissime li ñu war a tëggaat suñu réew. mais dafa sori beneen affaire rek bu may jeexalee ci ministre de l'intérieur caméra de surveillance du war a bëri ci dëkk bi la loo leen ci dolli doyul mais immeuble yi nga xam ni am nañu yenn hauteur yi wala am yenn kële yi mais nañ leen ko imposer immeuble yi tamit nañu am au moins benn vigile walla ñaar sé sécurité la emploi da koy yokk mm-hmm. donc notre mal sori na et c'est profond. der yaa ngi wax léegi nag waa New York dama am sama yaay aji kumba ndaw madame Ba xarit la ci suma waajur bu jigéen bu may wax nit ñuy seetaan di ñu félicité. Hmm. waaw foofu la ñi may wax nii ñi ma doon tudd famille Bayo. Euh, à New York ak suggestion yi doon def allez jéggi. merci am na émission bu defoon wareef bi ñuy tëj wareefu